tuer les comment Macky va gérer la situation comment l'opposition va se comporter est-ce que l'idée continue voilà en tout cas ce qui est sûr moi nous sommes dans l'incertitude les soutral. en tout cas merci beaucoup. c'est mon analyse propre et c'est mon. et le commentaire est libre mais rappelons aussi que li quand même. parce que 10

am na manifestation yi fi amoon dama koy fàttaliku ba léegi bi ma demee sur le terrain si moo fay nii. Mm. ba ma toogee naa manifestant yi ñoo ngi nii xàmmee naa ñu si bari dafa déjà dafa fay téléphone bi. Mm-hmm. continué wul continué ma liaison après daf ma mm-hmm. koo wax ci antenne lii kenn waru koo def lii kenn koo def. Mm-hmm. parce que instant boobu maa ngi doog dugg ci métier bi. c'est vrai mu am ay mu tombeex ay manifestation yi fi amoon. mais daf ma woo ma lii lañ war a wax lii lañ war a wax. kon am a donc li nga xam ne war li ñu war a wane ak li ñu war

mais est-ce que le tribunal des pères tribunal des pères nous ñu ñu ñu ba décision mais procédure y' a aussi un fait dans finalement euh, il y a des opposants entre eux dans l'opposition

combat nous libérer la démocratie sénégalaise certains disent qu'elle est emprisonnée d'autres disent qu'elle est euh, à terre etc où elle rampe en ce moment mais c'est ça c'est ça le réel combat quand même c'est la première fois. reporter une présidentielle ce pas mais c'est normal qu'il y ait ça parce que reporter une présidentielle. ce n'est pas reporter une finale de de c'est pas la même Sénégal. chose. Mm. C'est quand même. bu ñu demee ba toll ci ñuy dàq élection. c'est présidentielle présidentielle de surtout discorde. waaw nañu waxante dëgg. le président a donné ses raisons. Ouais. mais ces raisons euh, opposition bi wala candidat yi ñu bëri. dañ ko rejeté dañ ko rejeté.

fee dugg ba toog Sénégal saa bu ñu waxee ñu saaga ñoo saaga ba ñu tooy man dama yoon bi xam mu gën a bëgg sax sinon rek boo wandee du baax de tribune yéen kaay daal di ñëw ci élection présidentielle 2024 lii njaw mu ngaa woy di sa desu xam bin tribune yéen kaay en rouge la ko bind dàq nañu ko ba vingt cinq bala de vingt cinq mois après maanaam fi ñu toll nii six mois Washington ak Paris fu mu nekk nii nee nañu président Macky Sall fu mu nekk nii dañu lay xool ni ku jël meew def ko teg ko ci taal ngay surveiller jàpp tat rek te nu mu gën a gaawee ñoom loolu la ñu bëgg lu dàq nga ko

démb ñoom nee nañu mënuñu com dañuy battre campagne parce que mënuñu génn seen xaalis defar lépp budget beex yooyu yëpp ñu génne ko décaissé. Euh, ils ont passé les étapes. waaw ñu validé sama mi ngi mel nga dem. ñu proclamer le d'office Asma Khadija jàll nga d'office nga dem def sa kii feetu ba arrosé ba kii. ñu jàpp date pour arroser pour féete. on a la bac boobu existé. Mame Mbaye ma ah. laaj la léegi lu tax kon. ñoom ñoo ngi doon soutenir les 49 spoliés yi nga xamante ni dañoon di proposer le, la suspension du processus électoral pour càmbaraat parrainage c'est pour le principe principe c'est ça. Il y a des soutiens pour le principe. Ah, parce que gis nañ si Aly bu porté combat 49 spoliés mais c'est comme certains candidats certains candidats ils sont allés ils ont demandé le soutien de d'autres qui ont été spoliés pourtant. Ah bah, comment tu l'expliques ils sont allés, Basilou Diomaye a envoyé une délégation chez Bouga. Chez Bouga, Khalifa Sall. Et pourtant, ils soutiennent le combat de ces gens-là. Et pourtant, les spoliés. dire que. on Donc c'est juste des faits, quoi, Ça veut dire que. Les imbroglio. waaw Sénégal na leen ñor ñoom ñëpp. en tout cas demoon doon campagne ñii dañu leen gazé démb Aminata Touré Anta Babacar Ngom daanaka mujj nañu leen bàyyi ci guddi mhm. ñu dem ñibbiwaat. signal Walf ñu ngi ko doon wax sànq Walf TV dañu ko nag daal di dagg mu di lu ñuy ñaawlu fu mu nekk nii. nee nañ sale boulot de maître mussa Bokar ca mooy ministre bi. fu mu nekk nii wax fa dëgg ne ni ko daggee nii teguñu ko fenn. Bougane Gueye Dany ci tribune yéene kaay ne lii nii yëpp waxoon naa ko mat na six mois ci ginnaaw neewoon naa leen boo leen deful attention li ñuy dox nii yëpp lii di xëy neexu ma benn yoon te di ngeen may waaj pour mu reporter élection yi moo ko waxoon nee na am na lu ma wax nag observateur yi union européenne moom jiital gëm sa bopp ne dina jël lépp lu ay dispositions yu nécessaire ci situation bi fu mu toll jamono joojee Mamadou Lamine Massaly mi ngay wax nee na waa léegi lu waral coow li la mooy problème bi opposition bi moo ne nañu dàq élection yi tëggaat ñi mën a bokk bokk ñu corriger erreur yi ci am waaye kon ana problème bi. te moom mouvance présidentiel la. te moom mouvance présidentiel la bokk. faut le préciser. nee na waaw yaa ne defal ma ñu defal la ba pare nga ne kenn du fi defee Le problème bi Mamadou Lamine Massaly mooy wax de. mais mais la question c'est de savoir est-ce que la situation. li ñuy dund nii la situation autour du processus électoral surtout au niveau du Conseil constitutionnel, est-ce qu'on avait besoin de d'abroger la loi portant euh, convocation, électorale Est-ce qu'on pouvait régler cette situation autrement, autrement.